moo fi ñëwoon tey tey dama ko daan defee danga koy wax léegi ni mosul jógee voyage ak loxoy neen mosul am saa yu ñëwee rek am na lu mu indaale docteur Salibou Diop mën na ma seede ndax tey fii la ñu ñëw tey si poste de santé bi te li ko sabablu mooy ndax docteur mooy mooy médecin chef bi bu ko tegee si loxoom rek dina àgg fi mu war a àgg waaye tey dañu ko tey baal ñu rek nga ñëw fekk si ñu. ndax sëriñ bi dafa bëgg visiter waale poste de santé bi mm-hmm. mooy sabab bi mm-hmm. donc ndax moo mooy mooy yilif madame Diallo madame Diallo nangu ko lool bi mu ko woowee sax dafa ma ni woowal docteur Diop mm-hmm. waaw donc occasion pour ñu visiter ko sang bi nag lii eh, du guleet docteur Diop mën na ma seede saa yu seen jóge voyage bi donte ñaari fan ñetti fan la dina ma woo ni ma am na lu ma indaale muy lu rafet vraiment eh, di ñaan yàlla rek mu yàlla yokk ko ndax euh, koo xam ni bu amee may la da koy ñaan mu yokk waaw da koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér sàmm ka sàmm njabootam li mu yéene si Cambérène yàlla yàlla si jiitu moom muy xéewal ak barke ñu gis ne euh, ndimbal bi indi nga ko ndimbal bi bi yoon indi na matériel indi na médicament ba tàyyi waaye bii yoon appui financier la mm. appui financier la dafa dugal si loxoom si si si si si comité bi ndax euh, xaalis moom mooy lépp. Mm-hmm. boo bëggee jënd matériel di ko jënd boo bëggee jënd garab di ko jënd. Mm-hmm. loolu la indi symboliquement. Mm-hmm. indi ko daf ko si si structure de santé bi. waaw euh, Kofi Anam man ndax tey en tant que premier magistrat yaa ngi bàyyi xel ci poste santé bu bees bi voilà ci pour jàppale askan bi ñu rawati ci Cambérène waaw lii sant yàlla sant yàlla baax a baax di gërëm président Macky Sall ndax li naan bu lëkk lekkee aloom na ko gërëmee cooy ndax maa ngi koy wax léegi sëriñ bi bi ñuy ñëw. gis nga bi ñu posé premier pierre bi fii Gavi ONG Gavi tubaab yi ko posé woon le matin si ngoon gi ku seetaan télé la ñu soloon président daf leen recevoir te xam nga tey ku ñëw si dëkku jàmbu tey boobu loo fa def tey si ngoon gi di nga ni président kat demoon nañu Cambérène posé nañu premier pierre te liggéey bi ku seetlu taxawul liggéey ba ñu posé premier pierre ba bi mu sottee taxawul chantier sax di nga dégg ñu naan taxawul ñu fay ñooloon mais bii taxawul léegi nag li des mooy équipement bi équipement bi moo des kooku ñu appelé le ministre de la santé c'est xarit Diouf Sarr mu def si loxoom ba nga xam équipement bi millions na millions millions francs CFA. millions francs CFA. Mm-hmm. équipement dédié au poste de santé euh, vraiment euh, édifice bi fu fi dugg xam ni liggéey nañ ko ak yéene waaye des na équipement bi équipement bi nag moo ñëwagul te kooku ñu ngi koy lancé solennellement ñu inauguré ko parce que inauguré guñ ko bien que hôpital euh, bu mel nii doo ko tëj donc tey sant fi mu toll doo def lu mel nii ba pare tëj ko ñu ngi ko tijji nit ñu faju waaye nag liggéey bi des na liggéey bi des mooy équipement bi d'une valeur de cinquante millions na ñëw comme ça mu yokk si structure. sa kàddu gu mujj gi gis nañ docteur Cheikh Sadibou Diop moy moy infirmier chef de poste moy chef de médecin chef de poste euh, ak ki nga xamanteni ni madame Diallo nek infirmier chef de poste moom ci Cambérène de ñoom ñuy nek ñaari doomu adam yo xamanteni ñoo téé centre Cambérène lan ngay ban jang ban message ngay jàll ci par rapport ak ci considération bi ko askan bi war a waaw loolu bala ma see wax dama fàtte ni Ousmane Touré sama premier adjoint mi ci ginaaw man dama sédé ni démb bi ñuy waxtaan ci vote budget 2021 bi.

waaw loolu àggaguñ ci <laughs> suba moom yàlla xam li xew <laughs> dañuy wax tey waaw li ma laa laajoon léegi euh, docteur Sadibou Diop ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant tey ku yeewoo Cambérène xam nga ni santé moom macha allah te waa keroog dañuy euh, asanka mm-hmm. moo doon maye sëtam mm-hmm. euh, ki koy takk Colobane la dëkk waa Colobane bi ñu ñëwee dañu ni tey du ñu ñibbi tey te yóbbuwaale ñu docteur Sadibou Diop ndax si ñoom la jóge te ba léegi ñu ngi koy jooy noppeeku ñu ko woon di bu ñuy dem daal daal daan yóbbu seet bi mais moom si dañ koy jàpp ah, yóbbu yóbbaale <laughs> ñu ngi leen nag tey du dem te bu ngeen defal nag na seet bi sax day des ñu ne kon nañ yóbbu seet bi xam nga kon kon su fekkoon tey jóge na fa tey am na ñoo xam ne tey comme jigéen ñi wax tey bu ñuy bu ñuy génn dañuy dañuy diri diri ci cin mm-hmm. waaye kii moom mbokk si macha allah madame Diallo même chose ku xam histoire bi defe naa mag ñaa ngi fi doyen yi hmm. xam ne ni madame Diallo am na ku mu remplacé. Hmm. ku mu remplacé woon dañ daan kii rek. Hmm. waaw mais ba mu ñëwee ba léegi daal vraiment la ñu noppalu. la ñu noppalu man fii dama fiy gëj. bu tax ma fiy gëj mooy parce que xam naa ni c'est en de bonne main. ñu ngi sa loxo yi wóor wóor wóor wóor te docteur mii tamit même chose yenn saa yi sax damay dama fiy gëj a dégg ba rus.

donc nag yow balaa muy egsi foofu yow jëlal sa matuwaay bul xaar di président di dàqante policiers yi dàqte fii mooy wax lii loolu déedéet adduna kenn mënu ba tey ngay dem te lii dañu ñaan yàlla mu jóge fi donc ñun sañu bopp nag ñoo war a yaru discipliné wu takk masque respecté du ñàkk nuyoo ndax moom la ñu baaxal moom la ñu xam waaye la ba dugg sa kër raxasul ba set raxasul ba set te jël aussi ay mesures yoo xam ni bañ a laal sa kanam wala sa yooyu sax wàllu docteur yi la mais boo génnee léegi ku la jox loxo xam nga mu amaana doo nekk du ma la nuyu ndax ñun xamuñu loolu waaye nag boo nuyoo jëlal soin ba nga xam ne tey boo demee raxasu mm-hmm. wala boo boo mënee raxasu sax ci instant yi waaye eh, xam naa li fi jaaroon te bi nekk di ngi wàññeeku ah mm-hmm. vaccin yaa ngi commencé dañuy ñaan yàlla mu gën a continuer ndax ñu ngi ñàkk eh, ñu ngi tuddee Royaume-Uni Angleterre commencé na ah Sénégal xam naa suuf la ñu commandé yooyu yëpp mi ngi dem waaye nag taxaw rek ni dañu feebar ñu feebar loolu moom adduna day dox te mënu ko tey. Hmm. loolu moo tax waaw. dëgg la sa kàddu bu mujj bi ci. waaw sant yàlla rek sant yàlla baax baax te tey tey ngi parce que lii moom de hôpital la nekk ñi dañu war a di yi sanga bi waaye sant yàlla rek sant yàlla di ñaanal ñëpp rek képp fi teew rek di ñaanal sanga bi ñu ko waxee sànq yàlla yokk ko waaw ndax exemple la exemple la pour jeunesse Cambérène yëpp wala pour ñëpp nag waxuma jeunesse bi sax waaye ku am teranga rek vraiment lii ndax eh, xam nga tey nga am sa alal alal li mu saxee si xol nga jël ko joxe te donte sax pajowoo fi ndax li ma wax sànq rek moom waa Cambérène la ndax Seydina Issa mooy maamam waaye ma nga yoof apix si la nekk fa la fa la kër hmm? donc tey tey jii tey bu fekkoon euh, loolu la rek du du du du jël oto ba fii. taal oto ba fii donc dafay joxe foofu ndax am na waaye nag Cambérène moo sax si xolam. moo sax si xolam te loolu dañuy wax ni ñoom nga xam ne tamit ñu ngi seetaan muy waa bitim réew ñoom ñëpp nañu def exemple ni moom jënd nga sànq mu ne ñaari ambulance nga fa di waaw te loolu te exemple la ndax ku si nekk. doonte sax benn saag bu ndaw wala def ay matériel indil ñu ko soxla nañ ko. teg waaw donc appel la rek dina ku nekk rek roy si lii ndax tibb seex la Cambérène ala kulli yàlla kenn mënu ko tëye day dem. Mhm. ndax fu yontu yàlla isaa tëdd. Mhm. barke barke du fa barke du fa du fa jóg bu mhm. ko alxuraan la. sang bi xam lu ñuy wax alxuraan moo wax loolu fu yàlla isaa tëdd barke du fa jóg donc tey nag bëri bërigo la si si si tegal sa loxo rek bu demee nga ñu ni ñu ni si nga bokk waaye li gëm pon mooy bank sa loxo mm. bu yàqoo dañ naan yow la waaye sant yàlla mm-hmm. salaamaaleykum madame Diallo maaleykum salaam Elmat te gis nañ ne tey dafa am benn ndimbal bi nga xamante ni gis nañ ci maam Amadou Samba ak euh, sang bi lay Maktar ñu ñëw fi tey mobiliser tey ak docteur Cheikh Sadibou Diop délégation bu mag ñi nga xamante ni mooy ñeenti délégué de quartier de yëpp ñu mobiliser ñoom tante na bu ñëw fi tey lan moo waral na tey daje bi Euh, Elmat ça va ñu ngi lay nuyu kontaan trop waaye balaa may ma ma nuyoo aussi ñu ngi nuyu sunu xalifa sunu papa Baye Chérif Ablaye Thiaw lay di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool kontaan euh, contentement bu rëy la ñu am vraiment di recevoir euh, Mame Mactar lay di doomu xalifa bi vraiment mu indi dimbalam ci poste de santé bi nga xam ne soxla nañ ko trop. soxla nañu ndimbal boobu nga xam ne dinañu gën a yombalal su suñu faj si poste de santé bi. Mhm. Euh, gis nañ ne mu wax ne moom Mame Makhtar mu ngi lay seetaan nee na am na yenn yu mu leen dig daal di jàpp ci ci poste santé bi promesse yi nga xamante def na ko loolu nan la lay def. vraiment ñu ngi ñu ngi siy kontaan parce que c'est pas la première fois mu intervenir ci poste bi parce que intervenir noo fi avec monsieur le maire vraiment. Euh, suñu ko waxee tamit tam ñun dañuy kontaan di ko xaar parce que euh, lépp li nga xam ne dañuy dimbale matériel si nga xam ne dañuy jàppale si faj euh, su suñuy malaat ñun dañ ciy kontaan te soxla nañ ko puisque poste bu bees la moom matériel yi yëpp duñu yembago duñu ñëwandoo mais ñu soxla nañ ko vraiment te ñu kontaan nañ si vraiment si recevoir ko parce que li mu ñu defal lu rëy la aussi saa nga gis ne docteur Cheikh Diop nek sa xarit ngeen momi nek amé fofu foofu Cambérène ah. yow nga nekk Cambérène de voilà tay nga gis ko ci événement nan noonu la nan la lay def. ah docteur Diop sama kilifa la moy sunu médecin chef commune ñun ñu ngi bok ci district nord bi nga xamni docteur Dabassi moy médecin chef district nord docteur Diop moy sunu médecin chef euh, de commune vraiment loxom ak. Euh, poste bi moom du si jóg mu ngi centre ba mais moo géré centre bi géré fi ma damay liggéey ak moom vraiment vraiment mu ngi ñuy appuyer bu baax vraiment ku neex a liggéeyal la aussi vraiment. délégué de quartier yi ñeenti ñoom lan ngay wax si ñoom est-ce que ñoom ñu ngi la taxaw. waaw quatre délégués de quartier yi moom déjà comme d'habitude lépp lu jëm ci wérgu yaram muy ak même li nga xam ne si yeneen secteurs yi re vraiment dañuy intervenir ci poste bi vraiment ñun muy ñu disponible ñu bëgg wérgu yaramu post euh, population bi ni activité communautaire bu ñu def wala li nga xam ne ñoom dañ ci laaj seen participation dañ koy motale ba mot sëkk man vraiment damay kontaan si liggéey ak ñoom si activité sanitaire yi

parce que ñoom ñooy sunu ñoo yor sunu kàddu ci biti activités yi ñuy def tamit tam ñoom ñoo koy déroulé jàmbaar lañu vraiment vraiment am nañ ci réussite liñ ci soxla woon am nañ ko ci vraiment euh, macha allah. vraiment aussi ñu ngi remercier vraiment poste de santé bi man maa infirmier chef de poste bi mais dafa am équipe bu fort bu bu dëgër bu nekk sunu ginnaaw muy personnel de santé bi lépp liggéey bi ñuy liggéey ñoom ñoo koy liggéey CDS bi suñuy partenaire la vraiment lépp si ndigalu district Euh, nabi Choucair si njiital docteur si. sa kàddu gu gi ci Sam TV. ah Sam TV vraiment kontaan nañu vraiment vraiment Elmat liggéey bi ngay def si commune Cambérène lu ñu rafetlu la vraiment parce que fépp fi ñu bëgg communication dem yaa ngi siy jàpp bu baax a baax yaag sa équipe vraiment ñu ngi leen di ñaanal ci kaw ci kanam.